تنزل أنت بها ملك الملك الملك Yeah. hare hare سليمان نوح يونس اليسعي وزكريا يحيى ويملام هارون يوسف إلياس وآدم دا وداوس الكفل عيسى ليملام ويوسف وبإسحاق وخيرهم من أنبياء ورسل لك يملام Moustapha mi nga xamante ni mooy initiateur bi waaw at mu jot mu di ko def nag Mbacke la waaw maam euh, biñ njëkkee jàpp màggal gi sax laata sëñ Sidi Moxtaar di noppalu la defaroon cere yu bëree bëri yaakaar naa ay nangami tonn da nga defaroon nañ ko ci cere indi ko sëñ ngir euh, maam jaara daara maam jaara ji buñ toxalee bis bi it da nga yàlla dugal kon moo tax moo mbala mi nekkaat tey jii waaw di sant nag ak gërëm waa Kaolack gépp da nga seen liggéey seen pas-pas waaw ñi ànd ak euh, gën a ànd ak yar ak teggin rek gën a ànd ak war ma waaw te xam ne lii moom dégg nga luñ fi waay def rek dégg nga sama jaay daan la ko fay waaw lii sëñ waxoon rek ne maam ku fi toog ab diir dégg nga la fi wala ko waaw rawatina kon nag liggéey bu rafet boo xam ne dañ koy da nga eh, xool fajee dañ dañ nekk ci kër sëñ rek di buub di raxas da nga moom lañ koy fajee waaw kon li may ni daal nga xam ne lii lu baax la bàyyi sa liggéey baye sa kër baye sa yite yëpp da nga ñëw di balal sëñ touba di balal mam Jaara loolu rafet na jot de doona sëkk yaakar kon ñi ngi ñaanal mbooleem ku fi teew ci barka Soxna jaar yalla nas mu saw ay déwén de ñaan ko liggéey ñun ñëpp ci barka alxuraan ñi gis ne 32 bis nga jógee kaw day mandragal ne nit wala nañ pass pass ci bis bi xam nga lima lay wax kaw lax euh dafa am mu tijaan na khadir laayeen ñëpp li ñoo am doon ben lu baax lañ bëgg tay fi mboolem bi man ma am mu sofi no xol li fi nekk waa kër Baay ak li fi nek waa kër euh, Alaaji Malick Si li nek ay layen ak cekkeen da nga soo leen seeti da nga yaakaar sax da nga suñu ëpp suñu ëpp murid yi moom laay waaye gis nga su xewee ni la ni ni lañ ko àndee ñoom ñëpp da nga ànd doon benn jàpp ci bu baax taxaw liggéey bu baax a baax a baax ah, kon nag da nga dañuy ñaanal Kaolack gépp la ñu ba mas ñaan rek yàlla gën ñoo jiboolee ñu gën a ànd doon benn xam na lu baax li ñu yàlla may maam Mbaye ñasang fa maam Ablaye ñasang fa da nga maam euh, waa ka Amidou Kane ñang fa waa ka Ousmane Kane ñang fa da nga waa ka sëñ Bissir Mbacke kon Touba mu na kër diine yi ay am Sénégal yëpp da nga seen mboole seen da nga euh, euh, dañoo nekk Kaolack waaw kon yàlla ñu yàlla gën dimbale gën ñoo defal tawfeex liñ yaakaar ko yow jël ñu jëf ko ci kàttanu yàlla yéen mu ne mbàkk alquran summa zawatihim jibril summa bimikail yamar wa sahibin nafri israfil khabib ar وعي الخلائق عزرائيل يمام وبالصحابة ثم الأولياء معا والعاملين من الأخبار بالصديق وبالفاروق ثم بذي نورين ثم أبي ستين يا الله بمالك ñoom ñu sant yàlla bu baax ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba bu baax ci liggéey bi nga xam ne taw féexalee nu ko ñu di ko ñu di ko def kenn ku ne xam na njëriñ li nga xam ne moom la liggéey bi am solo ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha muy liggéey bi mu am cër di liggéey bo xamne waxtu wu nek da koy bayyi xel lolu taxit ni ngeen ko gisse mbokk taalibe yi joggi fenn fu nek ci gox yi nek bir kawla ak liko wër ngir ciew tay ci fi ci Poroxaan ngir yeesal dekk bi nga xam bi màggal gi fukki fan ak ñaar rek mo ci dess jàpp fukki fan ak ben nga gis tay mbolo mi fenn fu nek nit ñi joggi fa ci bis bi muy bis bo xamne amna solo lol ak kenn ku ne xamne set mom. manam martaba bi nga xamne mom la am ci ci diine Euh, looloo waral li tamit saa su bis bi jegesee mbokki taalibe yi bëgg fa yéene ñëw yeesal dëkk bi ba nga xam ne incha allah su ñu fi jógee ko kenn ku nekk fu mu fu mu egsi rek dana fa mën a toog ngir dëkk bi ni mu war a mel incha allah danañ ko mel te mbooloo mi nga xam ne ñoo fi daje tey lu ñu mënul def rek moo amul looloo tax gis nga bi ñu yegg seeg léegi yàggul waaye gis nga dox bi nga xam ne liggéey bi mu ngi koy mu ngi koy dox mun yaakaar ne incha allahu balaa 16h jàpp 17h menn mbalit dootu dootu dootu taxawaalu fii ci biir Poroxaan incha allahu. waaw dañuy tàmbalee booy dugg Poroxaan ñeenti kilomètres laa da nga si muy kër Serigne Cheikh Saliou ndax xam ngeen dëkk bu nekk jaaruwaay ba nit ki di jaar di yegsi ci dëkk bi dafa am solo lool ngir wane dëkk ba nu mel. te ku wax poroxaan war a wax set ndax soxna jaara soxna la woon te ku wax soxna wax bale wax buub te loolu kenn ku nekk ku jàng taarixu soxna si xam nga ne amoon na ci solo lool waaye ñu tàmbalee ko yi tamit ci kër rakki sëriñ bi muy sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou ba tax saa su ñu yegsee këram la ñuy tàmbalee bale ji incha allah wuti nag jumaa ja 2008 ginnaaw bi fi Cheikh Mouhamadoul Moustapha Bachir bàyyi ko ci la sëriñ bi jox ndigalul ñuy bale si Poroxaan boobaag léegi nekk na fukki at ñoo ci 2018 nga ko leeree léegi Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla tawféex la nu mu nekk huitième xalif général des Mourides loolu day mel nii euh, tawféex la ndax euh, euh, faalu dafa am solo ci diine te kenn ku ne xam na taxawaayu Cheikh Mouhamadul Mountakha ci ci lislaam kenn ku ne xam na taxawaayam ci yoonu murit kon su yàlla dogalee muy borom pas-pas bu rëy ba mu doonoon doon borom liggéey bu rëy ba mu doonoon doon borom jëf ju rëy ja mu doonoon ci yoon ba tey yàlla def muy yoonu mu nekk mu nekk xalifa général des mourides loolu gis nga tey jii sëñ Babacar kenn ku nekk oto yaa ngi nii ba léegi di ñëw fenn fu nekk nit ñi jóge fa mbooloo mu bari ngir taxawu liggéey bi di liggéey bo xam ne liggéey bu yalla barkel la ndax serigne salih mbake mu bax ma daana wax ne euh, liggéey bu yalla nangu jërul laccé xolal xolal mag ga rek ndax lo xam ci ñaari bis nga ko tambalé won ren nga dem ba bis amatul bir kaolax auto yi ndaw amatul ngir mi bari bari guñu bari bari loola tawféex la kon liggéey bi dal suñu la mënee wax moy am ak yokkute bu baax euh, fukki at yi ñu ko liggéey tamit at mu jot lu mat juroomi bis japp lu mat ñetti témeri japp juroomi témeri dinañ dolli ci at mu jot ba fi mu ne nii buñ doon xayma nit ñi nañ ko xayma ci ñaari junni ak nangam ëpp nañu ko ndax li ñu bindoon démb rek motoon na 30 bis te gis nga li fi ñëw ci ay njagañaay ni ñu toll kon loolu day wane ne liggéey bi mu ngi màgg waaye ñuy sant yàlla bu baax di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy xalifa général des mourides suñu borom kantanal ko dëbb ko kattan ba li mu bëgg a liggéey lépp man ko ndax am na yéene yi ci am na yéen yi liggéey am na yéene yi defar li ko li ko ci mën a gën a dimbale rek mooy wér ak ak ak kattan ñoo ngi leen di sant na bu baax di sant presse bi ndax tey fu liggéey bi yegg rek ginnaaw bëgguk suñu borom mooy presse bi moo ko fa yeggale ndax ñoom ñooy jàllale xibaar yi ci nit ñi di ko yëg jamono bu nekk. kon ñoo ngi leen di sant di beral ak cant Alfayda di ko beral Lamp Fall TV eh, ci seen taxawaay ci liggéey bu baax a baax. waaw nit ñi moom wax dëgg yàlla seen pas-pas da lay yëm sax. ndax saa su jotee saa suñ jàppee màggalu poroxaan rek da nga gis nit ñi tàmbali di woote di laajte ba ci ba ci yéen kenn ku nekk di laajte kañ la mbalem poroxaan euh, pas-pas bi ci nit ñi àndal nag dangay mujj sax yéemu ak bëgg gila ko nit ñi gën a bëgg nga xam ne nit ñi nga xam ne ñoo koy yëgle da ngay dem ba sax di ci am kersa ngir ni nit ñi bëggee liggéey bi loolu mën nga ci firnde ndax boo xoolee ni liggéey bi doxee bi ñu ñëwee ak léegi rek firnde la ci ni mbooloo mi di yokkoo ni mbooloo mi di liggéey pas-pas bi ñu àndal kon loolu wax dëgg yàlla lu rëy la ci noonu tamit ndax woote metti na lool waaye woote neex na waaye woote ñu wuy si la nag loolu tawféex yi suñu borom la kon nag tawféex ji yàlla defal ndimbal ñu mën a woo nit ñi ci liggéeyal yàlla ndax ya ayyuha alladina amanu istajibu lillahi wa lirrasul iza daakum lima yuhyikum lol loolu rek mo moonu fi indi sa suñ leen woyé ci luy dundal sen roh te liggéeyal suñ tuba day bok ci li dundal roh ndax tuba li abdin muridin sadiqin lahumo bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyatin kon khidma mom dafa bok ci ciosanu yoonu murid lol tax sa yo woyé murid yi jëme len ci xidma dafay daf len di soññ daf len di ndimbal la ci ñoom sëñ tubaa daana wax ne fekki fuñ may liggéeyal jëran na sol dalli weñ di ko doxee ba mu dagg loolu nag moom la moom la murit yi def seen mu nekk mu nekk seen pas-pas seen diggante ak sëriñ bi sëriñ bi mu nekkee gànnaar sax daana wax ne daana wax ne euh, képp koo xam ne liggéeyal nga ma yow suñ borom nang ma ko ko nang ma ko fayal te nang ko fegal ayu àddina ak ayu àllaaxira loolu moo tax murit yi saa suñ leen wooyee ci liggéeyal sëñ Tuubaa danañ ci wuy si wuy si goo xamee ne kaleen woo sax dana mujj xam ne lii du moom waaye sëriñ bi rek moo ne ci moo parce que baatinu sëriñ bi moo ne ci mbooloom mi. waaw man damay jàpp ne ci sama gëm-gëm mooy liggéey Sëriñ Tuubaa daf maa war man ndax ku ma gis warmaan ma ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa lu ku ma gis nuyu ma warmaan ma ngir jëmm Sëriñ Tuubaa ku ku ma gis yëkkati sa alal jox ma ko ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa kon buñ dee liggéey Sëriñ Tuubaa maa ci war a maa ci war a jiitu. ndax bu fekkoon njëriñul àddina damay damay wax ne maa ci gën a maa ci gën a jëriñu kon su ko nit ñi dee liggéey nag ma woo leen ba noppi toog fee di bàyyi leen ñuy liggéey day mel ni kon ñoom ñooy liggéey waaye man maanaam man liggéeyu ma waaye man damaa jàpp na damaa war a liggéey nit ñëpp takk sama ndigg laxasaayu liggéey nit ñëpp di liggéeyee waaw loolu moom daf maa war waaw moom daf maa war ndax ñi fi ñi fi nekk ñëpp man la ñuy dimbale rek ndax maa leen fi woo gannaaw maa leen fi woo nag buñ nekkee ca waaru dama caa war a nekk ak ñoom rek man Adama An taalibe Cheikh euh, sëñ Cheikh Sarr. waaw sant ndaxte euh, Porokhane moom bésu soxna jaara la mooy jenn jigéen ji benn bés bi ci àdduna bi képp kuy taalibe wala nga ne sax mën naa ne képp ku di jullit war nga cee indi saw ñaq at mu jot nag ñun waa Kaolack yàlla jagleel ñu ñu nekk ku baax. señ bi jël ko mu taxa jël ko sas ko mbirum bale bi lu ap lu mat fukki at ñu wara jog war ci jitu waaw ñun wa Passoir ak Kaolack ak liko wër lepp bu poroxaan gi di jup ci dess une semaine ñu ñew bale dekk bi ratu ko buub lepp ba gagne buñ ñewé duñ mëna am ben salte bu len di fank waaw ñu mëna jaamu yalla magal soxna si ci jaamu assalam ci doole Cheikh Ahmad ba mën a delluwaat ci seen i kër. fierté bu rëy ak yëg-yëg bu rëy xam ne ñoo ngi liggéeyal ko jara liggéey ndaxte fii boo fi ñëwee loo ñaq da nga koy xeeb loo ñaq rek da koy xeeb da ngay ak si ba saw ñàq tuuru fi parce que dafa lay lenn na ñàq wii di fi tuuru nekkul pertement ñàq la woo xamante nii yaa ngi koy ñaqal ku jara ñaqal koo xamante ni moom moo ñu ñàqaloon démb ba tey jii ñun ñu mën fee teew kon dañuy delo ndukal rek waaw Serigne Moustapha Abbas mbake yalla na fi yag ta am ko wér ngeen ñaanal ñu ko Serigne Mourtala mbake yalla na ko sama borom yagal tum and ko wér lool ñun dañoo kontaan rek ñun soxna yi kontaan rek lañu am ndax Serigne bi rek lañu am serigne bi lañu am diko ko liggéeyal sunu jëmm yi ak suñu dérë di serigne bi rek mo ci jeex serigne bi rek lañu am ñoo ngi soxna jaara bu baax na tay ñaan dal lepp lo xamanteni ne liggéeyu soxna jaara bu so la fu mu jógee rek nañ ne soxna yi acca jugli ndax suñ suñu jëmm yi loolu rek lañ ci soxla soxlawuñu leen liggéey Serigne Touba rek la ñu bëgg ñun waa kër Serigne Omar Diop la ñu ngi bokk ci waa kër Cheikh Omar Diop Touba Mbacké léegi nag comme ko yàlla dogal na dañoo bokk ci waa kër Cheikh Omar Diop te amuñu lu may waa kër Serigne Bassirou Mbacké kon Serigne Serigne Omar ak Serigne Bassirou Mbacké benn lañ moo waral fu kàddu gi jógee rek ñun su dañuy noppé xamatu lu ñuy def sëriñ xaadim dama ko naan sa yo joggé ba ni liggéey baa ngi rek né ma jëw ni aca liggéey ba ñu daal di koy défé rek ni ngeen ko bëggee kon sant rek ñu di sant daal di ñaan yalla nay taxaway bi yagg wa radio bi yalla na bi borom saxal ñu ngi sant ñëpp di gëreem ñëpp di ñaanal ñëpp ñu teewe ko ndigini déwun sa borom defal ñi jamm sëriñ Moustapha Abbas yalla na fi yàgg tànd ko ñëw pour tay jëmmal bëss bi madame la maire nak yebal ñu ñu indi won tay li nga xamanteni mom xépp nako ndax té mom mo bëggoon ñëwal bopam ab ngant bu ndaw tax mu ne nañ ñëw teewal ko fi ñu indi woon nag euh, fukk saaku ceeb bi nga xamante ne indi nañ ko ak 75 ballon ndox yi nga xamante ni moom lañ indi indaale tamit 50 euh, bale yi nga xamante indi nañ ko indi 20 20 pelle ak ak ak ay rato indi tamit ak ay brouettes yoo xamante ni 5 brouettes yoo xamante ni lépp pour ci wàllu setal dëkk bi géej. directeur nag ñoo ñëwoon ci ñëwin bi nga xamante comme sëñ bi ni ñu ko yebaloon saa su ne Mariama Sarr di ko def wane na fii la bokk ndax taalibe la doon taalibe mu pare ñëw taxaw waat bés bi di fete di war kóllëre comme ni ko doon defee saa su ne uh, ànd ceeg population bi ànd ceeg uh, nit ñi. madal Illallah.